Voilà, maître Ella Diouf, euh, Maître, maître, quelques mots, maître, quelques mots. Maître, quelques mots. Oui, la fête sera belle. Le 23 juin est inoubliable. inoubliable. Vive le Sénégal, vive le 23 juin. C'est la grande fête de la mobilisation pour fêter une date mythique, une date historique de libération du Sénégal que vous avez ressenti aujourd'hui Est-ce que vous avez ressenti On va permettre d'avancer un peu. Je vous dis que ce n'est pas aussi compliqué. Laissez-nous partir. Voilà, kooku maître El Hadj Diouf la mooy yegg si mettre maître El Hadj Diouf euh, maître El Diouf a ngi noonu di yegg si gis nga ne dafay fierté la am ak euh, mbégte la daal am tey ah. pour vous dire que tout simplement que kii di Diouf Daldi dina yegg si moom mi nga xam ne moom mooy le député du peuple. nee na trois juin ndaw ñi ñoo ko moom. nee na 23 juin ñoom ñoo ko moom. nee na 23 juin Macky moo ko moom. aha nee na 23 juin bés la boo xam ne dañu libéré li nga xam ne mooy peuple sénégalais bi. nee na 23 juin bésu xeex la aha na dañoo xeex. nee na dañoo xeex ba dugg boîte vocale ndaa. Mhm. nee na 23 juin bés la bu historique bés la boo xam ne aussi yaakaar la pour ñi nga xam ne moo di ëllëgu Sénégal kooku di El Hadj Diouf moo ko dal di wax. Mmh. nee na nak dañu bàyyi tëgg yi nañ bàyyi tëgg yi nañ ko déglu parce que li ñuy wax dafa am solo euh, peut-être que moom daa il a un peu compris li nga xam ne moo di enjeu yi ak li waral li nga xam ne moo di 23 juin parce que bokkoon na si ñi nga xam ne moo di les piliers moo di également quelqu'un boo xam ne il était très fréquent ci combat yi ba tax na muy woowee boppam homme du 23 euh, juin. waaw dina woowee boppam euh, homme du 23 juin Bamba ndax boo xoolee 23 juin moom loolu mu def loolu rek la war loolu mu def loolu ñëpp la war. parce que 23 juin dañ taxawoon temb pour changer li nga xamante ne moo di constitution Sénégal ñëpp taxaw ne tey duñ ko def duñ ko nangu te duñ ko seedaan dañuy xeex ba muy bëgg de lu mu leen jaral rek daf ñu koy jaral loolu moom c'est tout à fait normal Bamba te war na képp koo xamante ne sénégalais nga. <laughs> dégg nga nee na opposition bi lay waxal nee na da leen dal di dàq yóbbu leen fële ci terrain Grand Yoff nee na nañuy li nga xam nee na fii ñoom ñoo moom nee na fii ñoo ko moom ko xeex ñoo ko gagné. nee na fii moo moom ñooko xeex ñoo ko gañee du samay kaddu waaye kaddu ki la di metti El Hadj la di woy boppam nee na on a gagné nee na on a gagné samay kaddu waaye El moo ko dal di yëkkati nee na jërëjëf si mobilisation bi nee na jërëjëf également Euh, ci euh, euh, bi nga place de la nation dal di li nga 10 ans du 23 juin 2011 wala 2012 ba est Mamadou Dia dal ci les du également di loxo ku

dañ leen dal di dàq dañ leen dal di dàq ñu dem fële ci euh, terrain Grand Yoff fa la ñu amalee li nga xam ne moo di seen ay euh, festivité mais moom ñu ngi fi te fii ñoo ko moom euh, fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom daal waaw Bamba ñoom dañoo jàpp ni dañ leen war a dàq waaye ñoom dañ fay waroon a teew ndax teew buñ fiy teew bu fekkee M23 23 juin waa Pastef gen duñu leen jël tamit sëñ bi ñu ngi si jàmm maa ngi si jàmm waa tey waa waa APR laa andaloon Kër Massar ñu jox ma 5000 francs waa mais dama xam ne 5000 francs day jeex ici pour pour dire aux gens que la corruption doit s'arrêter dans ce pays. Un patriote doit être incorruptible. Ah, donc il y a les, jeunes qui sont là, ils sont être corrompus. Tous ceux qui sont présents à la place de la nation aujourd'hui sont vendus, sont corrompus.

daal di ko tàllal suñu micro rek mo dal di ci àddu je pense que ce serait aussi bien ñu dal di jox suñu micro euh, ñi nga xam dal di nañ fi euh, dal di nañ fi tew ñun ñoo fi àndoon xex donc ñu ñoy les vrais acteurs ñu ñoy les vraies victimes donc dañ fi dajawaat tay fukki at après pour bañ récupération politique pour bañ falsification histoire tay li taxone Sénégal yi jóg muy les acquis démocratiques yokku nañu bu baax tay li taxone Sénégal yi jóg muy les acquis républicains yokku nañu bu baax. est-ce que jàppaloo ne am recul recul amu état de droit y a un référendum bi a nañ dialogue politique un dialogue national a yeneen mécanisme comme dialogue social yoo xam sénégalais yi ñoo ciy daje waxtaane li nga xam ne sénégalais donc le dialogue est permanent le président a lancé euh, deux fois à plusieurs reprises des appels au dialogue, après le 19 comme en 2014, sans qu'il y ait de l'ingérence extérieure. Est-ce que vous avez en tiré les leçons Quand je parle des leçons, moi, il faut que tu aies une manifestation animale. Tu as problème troisième mandat, il y a problème, problème également nerveux, mais il y a problème. Non, d'abord, encore une fois, 23 juin, l'an montant qu'on nous a fait. Car bloquant, ticket présidentiel d'évolution monarchique du pouvoir. Lolo montant qu'on nous 10 ans après, nous avons acquis démocratique, nous ak i républicain yokk nañ état de droit bi renforcé nañu ko lu tax ma wax ko à maintes reprises njiitu réew mi woote na waxtaan dialogue politique mi ngi fi dialogue national mi ngi fi am yeneen mécanisme permanent comme dialogue sociale yoo xam ne question yëpp la ñuy waxtaanee alalu réew mi dañ ko constitutionnaliser def ko alalu askan wi yaa ngi dégg référendum dafa yokk doole assemblée nationale yaa ngi dégg parce que l'évaluation des politiques publiques beaucoup ci ay pouvoir l'Assemblée nationale L'Assemblée da doon wote ay loi l'Assemblée da doon contrôle de examen action gouvernement tey yokkal nañ leen l'évaluation des politiques publiques donc tey li taxoon ñu daje fukki at ci ginnaaw mun nañ l'a li taxoon sénégalais yi tey président nañ ci ay à travers des mécanismes permanents comme le dialogue euh, social à travers des mécanismes qui ont été mis en place comme le dialogue national et le dialogue politique donc toutes les questions relatives à la vie de la nation, toutes les questions qui intéressent les Sénégalais ont été passées en revue. Le référendum est venu pour renforcer ses acquis. Donc, pour la falsification de l'histoire, pour la récupération de la journée du 23 juin, pour rendre hommage à ces victimes des 23 juin moi-même qui la ñom ñep ñu ngi fi amul kenn ku fi joggé ci di faire le 23 juin am nañu fi nak seen at leen ñu engagement citoyen aussi waroon leen may ñu bokku ci té bokku ci won soxalu leen won war a farata té ñu pour récupérer ko donc loolu duñu ko nangu ay président buy gendarmerie nationale ak police nationale. Nous nga un wax ñu ci gendarmerie non non non je suis man ASP la yor sécurité mais sécurité état bi sécurité président force de défense et de sécurité vous yor vous donc bu féké ay nervi nañ ko xol une fa mais du ci ñun ñom ñi wax ñep ku ciy jóg gàdduy nervi ñun nervi ay nervi ñu ay nervi yalla mo ñu dënk réew mi ak sénégalais yi jogante ñuy dem dañ ci am ndam la doy ay nervi. problème troisième mandat yow lan moy sa troisième mandat amul xam lan am respecter les lois et règlements de ce pays c'est ça respecter l'ordre constitutionnel le conseil constitutionnel c'est ça ñun bi nous taxawee fii ab ñu jël dogal constitution bi bañ jëlee dogal le lendemain lañ battre campagne donc c'est pas une question de mandat c'est une question de respect de respecter les lois et règlements de ce pays c'est ça la question. Euh, ku le professeur Amadou Mbow dal di liggéey ci wàllum nous avons ni mel ñu gis président boobu il dafa xool lu ko ci neex mu jël ko ci neexul aussi mu kan président de la république. non xam nga lu parce que président nous ñu fal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 Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.